الهدى فانهض إليها واغتنم للقاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هي لجة خضراء وسط مفازة فيها الحياء وهي التي ترعاها دار الحبيب qulubuha tahwaha aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki lislaam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yaswa qawli amma baad alhamdulilahi dani thumma ila tariqatu cheikh abu muhammad abdulqadir jilani bi cheikhina cheikh saadul abi xayru sulaajatul waj an nabiul nabi alhaashimil mudari asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum mbokki téléspectateur télévision Rewmi TV ñu nuyu leen fi nga xamante ni nii fii lañ leen daan nuyoo waaye rawatina ci bis bu màgg bilee nga xamante ni nii ñu ngi ko jagleel sangu-sang yi ñu nekk ci weeram waaye ñu nekk ci bésam tey muy bisub gàmmu boo xamante ni nii bisu Seyduna Muhammad la la ma waxoon rek ca lay delluwaat ca wax ya mooy que ni ñaari bis yu mag a ngi ci lislaam yàlla séddee ñu ko te ñun jullit yi ñoo ko am bañ ma waxee ma ni leen rawatina réewum Sénégal may leen muy gàmm di bisu Seydunaa Muhammad bisu jullit yëpp la ñëpp a ko bokk ñëpp a ko moom waaye ñëpp am nañ ci cër beneen bis a ngi nii Cheikhul Khadim moo ñu koy indil muy safar muy sant yàlla santale leen ma yàlla muy màggal Sénégal bis yooyee bokk na ci bis yi nga xam ni tabaarakallaahu ay bis la yu ñuy ndamoo ci réew mi boo demee Tiwaawan am nañ kazaalika ay bis yu ñu mel nga dem fee ca Medina baay am nañ bis yu ñu mel. nga dem ca Nimzaat am nañ bis yu ñu mel kazalika Njaasaan fee ca Touba noonu it comme ni ma ko waxee waaye suñu kër maam Limaamu Laay it noonu kazalika foo dem rek ci réew mi ci këru ëttu diine bu mu mënti doon ci kilifa ya am nañ bis yoo xamante ni bisu lislaam la ñu yokkee lislaam mu taaral ko waaye nag tey da di sangu bis yi bisub tey bii da bis boo xam ni mooy bisu sangu bis yëpp moo taaral bis yëpp ki ci juddu nag waral ñu sàkk kuy jaam noonu rek la ñuy jaaree di nuyu réew mi yëpp di nuyu Sénégal gépp waaye biti réew képp ku ñuy seetaan rek tabaarakallaahu macha allah yéen a seen plateau spécial ñi nga xamante ne nii moo di gàmm mu di shahru macha allah shahrul mawlidi bi nga xamante nii ci la yonent yàlla Muhammad juddoo fa tabaarakallaahu ñu ciy ndokkeele président Mbagnick di ko ñaanal yàlla mu di président directeur général promo consulting gépp waaye rawatina télévision réew mi TV réew mi FM réew mi quotidien waaye nuyoo yi ñu koy jël di ko teg euh, ci loxoy DG Moustapha Diop mu wasaareel ñu ko ci euh, macha allah képp koo xam ne rek yaa ngi ci kër gi tabarakallah waa régime Malick Momo Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu tabarakallah macha allah coordinateur bi nga xamante ni moom lañ nekkal boobu ba léegi di DG ñu ngi koy ziar bu baax a baax di kilifa ci ñun di bëggee ñëpp di ziar ñëpp mbokk yi duñ ko sori benn yoon. niñ ko daan defee rek lañ koy defee niñ ko daan taxawee rek lañ koy taxawee waaye ni nga xamante ni noonu lañ ko daan jaarale ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla may ndam ci li ñuy waaj a dugg ñu feggoog tey nag ki nga xamante ni nii moo di imaam xaali imaam xaali sëy ñëpp xam ko ci xaala laaw xaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imaam xaali di kilifa gu ñëpp ràññee waaye rawatina ci ginnaaw di nga xamante ni nii moo di diine lislaam gi mu nekk mu di mu di li nga xamante ni mooy diine gi waaye ci suñu tarixa kër maam cheikhul xadim nga xamante ni nii ci xaside yi dina ci wax nit ñi mën a mën a dégg ci xasida yi da ciy leeral loo xamante ni bu buñ ko dégloo rek dinañ dégg waaye mu feggoo ki nga xamante ni moo di sëñ moor Mbay xasida mu nekk sama ndeyjoor sëñ moor Mbay xasida ñoom nag la ñu jàpp dajeel tey jii le fii ci plateau bi le ñoom lañu fii dalal ñuy njaboot suñu maam Cheikhul Khadim ñu war a waxtaane nag lislaam wala waxtaane yàlla wala waxtaane yonent bi wala waxtaane mbindum cheikhul xadim gi nga xamante ni jagleel na ko sangu-sang yi nga xamante ni nag tey mooy bisu juddoom gile moom Seyduna Muhammad du ñu sori benn yoon dañuy dem ci ki nga xamante ni moo di imaam imaam maa ngi lay ziar sëy alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala alhaadi amin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala wa ashaabi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi ak fu ngeen a nekk. ñoo ngi leen di nuyu fii ci réew Rewmi TV. Mhm. di leen siyaare bu baax a baax di jiital ci siyaare bi sëñ baay Kebe mii nga xam ni moonu dalal ci émission bi nga xam ni mooy émission bi nga xam ni tey nag moo gën a mag ci émission yi. Mhm. ndax kiñ koy màggale mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. te kooku mooy ki nga xam ni nag képp kuy wut ca moom ngay jaar mhm. ndax muy bunt bi nga xam ni ci la nit di yéege bay jëm ci yàlla mhm. ku fa doo dem moom sayduna muhammad sallallahu kon nag ci bis boobu nag lañu bëgg a dugg incha allahu rabbi waxtaan ci siira bi tuuti laalit ci xaside yi nga xam ni mhm. tagg nañ ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te mag ñi di ñu baax a baax ñoo xam ni mhm. xam nañ yonent bu baax a baax noo xam ni defe naa ni mhm. eh, ñoom ku ci wax rek nga yaakaar ni kooku yonent bi rek lay dundal moom la nekkal guddeeg bëccëg macha allah kon Baye Kébé dinañ la delloo eh, kàddu gi ba jugg ci biir waxtaan wi incha allah incha allah jërëjëf imaam xaali sëy tabaarakallah wax naa la ko nee naa la ci xam-xamu sell yi waaye ci déggin yi ni muy leeree ci yow tabaarakallah yàlla jagleel na ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla leeralal yoon yi nga xamante ni moom la ñuy dégmal waaye du ñu dañuy dem ci ki nga xamante ne ni moo di sëñ Mor Mbay Xasida nga xamante ni nii wax naa la ko léegi ci bindum Seexul Xadim di suñu maam Serigne Touba rawatina li mu jagleel ci bi tey di bisub gàmmu ci la ñuy jaare rek di ko nuyu macha allah sëñ Mor Xasida ñu ngi lay ziar di la nuyu dolli siyaar bu wér-wér di nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp di sant bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ci lañ bëgg a jublu muy liggéeyal yonente bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy lépp di buntub suñu boroom bi nga xam ni kuy wut te ci moom doo am di ñaan suñu borom may ñu jàmm ak fekke ba bis bi ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim hmm. génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin hmm. di siyaar ñëpp di ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàgg fi loolu tawér ak sëriñ am na Moodu Menda hmm. di ñaan sëñ Mbay Si Mansoor yàgg fi loolu tawér ak njabootu Cheikh Sidi Hadji Malick gépp ak waa Cene ba Njaasaan di siyaar ñëpp di delloo kàddu gi rek jërëjëf ñuy jëlaat kàddu gi waaye ci jël gi yëpp mooy dañuy fas yéene faram fàcce imaam tey ku xam bis bi ñu nekk tey mu di bisu juddug sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye laataa juddug weerug sayyiduna muhammad bis yëpp yonent bee ko waral ndax lu yàlla sàkk sayyiduna muhammad moo tax mag ñu baax ñi liggéey ci mag ñu baax ñi bind ci mag ñu baax ñi leeral ci leeral leeral goo xamante ni fa tabaarakallaahu ma sha allahu ku dégg kàddu mag ñi ku yër mbindum mag ñi ku gëstu xalaatu mag ñeeg seeni jëf ak seeni histoire xam ni daal yoon ci yàlla Muhammad rek ay waaja te waaja nag moo waajal gaa yi ba gaa yi koo ci dégg ñu naan la yaay waaja yeneen tibee la waajal tey nag di bisam imaam ana lan lan lan mooy weer wi yonent bi juddoo ak bis bi Seydina Muhammad tey di bis bi nu nu ko nu mu tëddee ci digganteem ak boroomam. wax nga euh, wax ju mooy juddug Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ni bi mu juddee ci makkatal mukarram sallallahu alayhi leer yi jolli na ba daj gox yépp ndaxuk leeram moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa moom nag kuy wax Aminatu bintu Wahab bi ma ko jur mhm. bi nga xamee ni waajuram Amina ëmb na ko mhm. bi ma amee lu mat ñaari weer la waajur Abdallahi doon jëggi yor am njëgg di dem saam ko côté siri bi mu retourné nag ba toll madinatul munawara yàlla dof feebar dal ko fa mu faatu fa kon bàyyi bi yonent bi ñu ngi ko denc madinatul munawara fay denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom madina lañ ko denc loolee nag bi mu amee bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gane jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ka ko tudd mooy Abdul Muttalib mooy maamam. moom moo ko te Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaye fekk na ca téere la tudd dafa Ahmed. Ahmed Ahmed la fa tuddoon. Hmm. moo tax bi nga xamee ni war nañ koy yóbbu ci lu gàtt rek nga xam ni. Eh, Eh, arab yi dañoo baaxoon bu ñu amee doom di ko yóbbu ci àll bi mhm. ngir moom aaday àll bi du mhm. nàmp rek la mhm. waaye aaday àll bi da daan baax su ko defee ñu yóbbu fa seen doom moo taxal ñu yóbbu ko ci alimatu saadiya foofu nga xam ni fa la nekkoon waaye ci alimatu saadiya boobu nag bi mu yonent bi demee ba fer da koo indiwaatal yaayam muy amina daal di ku cee wax mbég yam ca am ak xéewal yam ca am yooy xëju ci émission bi léegi nag yaayam ne ko kon comme lii nga ci am kat mhm. yéene naa la ko dellowaat ak moom mhm. mu di ko yóbbuwaat mhm. waaye bu ko yóbbu ba mu am juróomi at nag ci la ko mbir mi dëkkal ndax bi mu amee juróomi at daa ànd ak doomi amin di sàmm fekk na am na benn bis ñuy génne gàtt yi sàmm euh, doomi alima ni ko alima yaayam ni ko waa fu ngeen jëm mu Mouhamed mii ci naaj wu tàng wi mu ni ko yaay nun du nu gis aw naaj de mu ni ko lu xew mu ne ko Mouhamed mii may àndal day naaj wi lu mu tàng-tàng daa am niir wu koy yiir man ci niir wi laay taxaw loolu doomi alimatu sahadiya moo ko moo ko feeñal moo ko jëkk a feeñal mm-hmm. avant ko may sara di feeñal ca njëgg ma mm-hmm. kooku moo ko jëkk a feeñal mm-hmm. waaye foofee la ñu xare dënn bi itam waaw dënd bi nga xam ni ci lañ ko xotti opéré ko yonent bi nee na sallallahu alayhi wa na damaa dem ba ci digg àll ba nee na ma yebal doomu doomi ami alimatu saadiya ne ko dell jël yóbbal ba ca mhm. sayaay indilu mhm. ndax yóbbal bi nu war a am bay wàcc mhm. daa jeex nee na mu dem nag bi mu demee nag ci la yëf yi ñëw nee na daa jékki-jékki rek mu seen ñaari ñaari lu mel ni ñaari tan ñu naaw tiim ko dëgmal ko rek naaw tiim ko nee na jékki-jékki bàyyi kenn ki wax kenn ku kii la kii ni ki kii la nee na ñu daal di may ñu daal di may ëj ñett biñ ma daanelee may wax rek nee na ñu wëlbati ma. Mhm. yonent bi moo moom rek lañ ma a opéré muy jàkkaarloog ni ñu koy opéré. Mhm. ñu xotti dënn bi muy xool. ñuy génn xol bi muy xool. ñu wut ndoxum galaas di ko raxas muy xool moom Seydina Muhammad lépp mi ngi seetaan ni ñu koy def. bañ paree ñu kaste ko. daal di koy daal di defar opération bi. Mhm. Anas nee na fi ñu opéré woon yonent bi am na bis ma gis ko. nee na am na bis ma gis ko. biñ ko opéré nag bi ñu ko génnee ba pare raxas xol bi ñu ko kastee bi ñu xottee xol bi ñaari lumb lañ ci génne lumb mm-hmm. yooyu mooy li nga xam ni nit lay ayib li nit di sëkk yépp ci xol la ñu génne ci xol Seydina Muhammad daal di koy nettoyé teg fële mm-hmm. lépp lu nit di sikk ci xol rek ñu génn ko ci nettoyé génn ko ci Muhammad rek daal di koy nettoyé daal di teg fee biñ ko kastee nag ci lañ ko wëlbati ko nag daal di koy tàmpeel xaatimu nabiyina bi euh, Malick ko wuteeg suñu opération léegi yi nga xamante ni bu échoué sax mën nga cee faatu ñibbi barsax <laughs> <laughs> yàllaa mën yàllaa mën yàllaa mën yàllaa mën <laughs> kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis boo xam ne borom moo lay nettali ni nga ko doon ni nga ko doon defee biñ ko kastee nag mhm. la bi Seydina Mohamed jógee nag taseeg mhm. doomi Ali bi di ñëw bi mu néew see nag bi mu ko nettalee alimatu saadiya mhm. ci la alima nag yotaat ko lii moo tax Alima daal di jëlaat Mouhamed delloo si waat yaayu Amina ok bi ko yóbboo ci yaayam Amina na fekk juróom benn lu di dugg mhm. Amina it daal di woo ja kon Alimatu Saadiya yor na yonti yàlla Mouhamed bu ma déggee wax di juróomi at waaw soog ko rendre li nga xamante ne mooy ay wuy wuy juróom bu jigéen ndax baayam génn na àdduna dëgg la dëgg la mhm, waaw noonu la demee mhm. léegi nag bi mu ko delloo nag bi muy am juróom benni at nag ci la ko ne kaay ñu dem mhm. seeti sa xabru baay ba ñu siyaare ko ca madinatul mhm. munawwara mhm. mu ànd ak jaamu baayu Muhammad Abdallah bi muy faatu dafa bàyyi juróomi giléem akub jaam jaam boobu moo tudd umul aymana umul aymana moomu nag moo ànd ak aminatu waajuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Muhammad ñuy dem siyaare siyaare seen xabru baay ca madinatul munawwara biñ demee ba mënatatul mun a war a nag mhm. ñu am fa weer ndax mbokki baayam dafaa nekkoon mhm. waaye benn bis yonent bi di fo ak xale yi mhm. jekki ba yàgg benn yaxut gis ko di jaawanteeg moom rek bu yonent bi demee rek mu dellu si waat rombaat ak moom romb ko ba yàgg ñu wéet rek mu téye loxo bi ni ko yow noo tudd mën ko Ahmed laa tudd ndax mu Muhammad ci téere yëpp Ahmed la ko tudd wa mubashiran bi rasul yaxti min baadi ismuhu ahmed kon ci téere yooyu ahmed la fa tudd léegi nag mu daal di wër yahut bi daal di wër ginnaaw bi daal di ko fóon bi ko fóonee daal di yëkkati loxo bi nii kii day la yàlla mujj mujj yóbbu yónni ci mbooloom nit ñi kii moom lay yàlla mujj yónni ci mbooloom nit ñi mhm. bi mu ko déggee nag dégg boobu mu ko dégg mhm. mu dem nettali ko ñeneen moom moom yahut bi nag mhm. looloo tax nag amina bi mu ko déggee nag daal di tiit daal di wax ni umu ay ma ne nanu dellu màkk ndax xam ne yahut yi ni ñu mel mhm. ak seeni fexe bu mhm. daal ne ko nanu delloo ngir mu rawale ji doom ji màkk waaye yàlla def moom bi ñu ñëwee ba fu ñu tox abu mhm. diggante màkk ak madina amino mi yaayam daal di faatu foofa ak si wut ak si waatu màkk ngir indi yonent bi foofa la des daal di faatu ci béréb boobu lañ ko denc muy ab waaxu ñu diggante Màkka ak Madina nekk léegi umul aymani ci boppam moo jàpp loxo Muhammad daal di ko yóbbuwaat ci waajuram Mm-hmm. muy muy muy. Abdul ah, Muttalib Abdul mm-hmm. moo ko koy yëbbalaat mooy Abdul Muttalib. Mm-hmm. kon nii ci diggante woowu foofu lay yónni ci biir yàlla. macha muy nag. diggante bu yéeme. bu yéeme yéeme. doy waar doy waar ndax Rasulullah kenn la ci lépp moom. xam nga biñ koy soo jox waxyu bi. dafa ñëw ci baayam bu yox Abi Talib moo ko yoroon. Abi Talib moo ko yar moo ko takkal Soxna Xadija. bi mu ko ko takkalee nag moom yonent bi day fay njekk njekk loo ko def da la koy fay moo tax bi mu màggalee bi bi waajuram bi waajuram boobu bi mu màggalee ay doom mu daal di wax bàyyam bu ñuy wax bàyyam bu ñuy wax Abbas ni ko kaay maag yow nu dem ca Abi Taalib kenn ku nekk jëral ko doom ci doom ya mu yor ndax ab dundam daa néew te njaboot gara bari nan dem kenn ku nekk jur jël benn doom ca doom ya yor ko mhm. loolu tax yonent bi yor aliyu mhm. mu daan jëm jël aliyu kee daal di jël jaafar mhm. jaafar mooy ki nga xam ne biñ gàddaayee moo doon yor kàddu gi moo doon wax ak abash mu daal di jël nag aliyu indi ko këram kon waajuram waajuru aliyu moo ko yaral moo moo aliyu waaye aliyu jëkk gis yonent bi ak xadija di julli allahu akbar lu mu doon mënu ko waaw ba ñu ba ñu ko sama mag mënu ko waaw mënu ko li ngeen di dog lu mu doon mu ko lii mooy diine yàlla ji lii mooy diiney malaayika yi lii mooy diine ji yàlla yónni mboolem yonent yi yii mooy diiney bàyyi ibrahim diine ji aliyu moom laa lay woo mooy mooy diine ji mhm. aliyu na aliyu daal di ni teg ba mu yàgg aliyu ne ko nag mënumaa dugg ci diine ji te tàgguma sama baay abi taalib mu ko aliyu mu ne ko ah, mu ne ko bàyyil mbir mi ndax yàlla waxaguma ma yëkkati ko est-ce que kon nag boo dugg rek bàyyi mbir ci la ko aliyu ndeysaan daal di bàyyi nag mais Aliou mujj na dugg a ko bàyyam di jox ndigal mhm. mu mu mujj dugg ci diine ji mhm. ba mujj ñoom ñett ñuy julli ba mhm. Abi Taalib nag fekk leen fa ñu julli ñoom Abi Taalib mi ko yar ñoo ñëpp ñu julli ñoom ñëpp mu indi leen ci julli gi waaw ca yonent bi mu ñëw Abi Taalib bi ñëw ne ko waaw yow sama doom sama doom lii lu xew lii mooy jan diine mu ne ko bàyyi lii mooy diine yàlla ji lii mooy diiney malaayika yi lii mooy diine Ibrahima lii mooy diine yonent yi diine jii la ma yàlla yónni ma ab yonent yow nag yaay sama baay yaa gën a yayoo ma woole ci lii ma ne yow yaa gën a yayoo nga si ma ci lii kon nag maa ngi la ci woo yow nag yaa gën a yayoo it aar ma ci ndax yaay sama waajur nit mbokkam nga ko nit mbokkam yaay sama waajur yaa gën a yayoo nga aar ma ci ndax yaay sama waajur mm-hmm. léegi nag ci la ci la abi taalib ni dën ba yàgg mu ko man day wax dëgg mënaguma bàyyi sama diine maam ya si hmm. waaw moo tax yonent bi sonn na ci moom ndax moom ba fukki at yi ñu yónni yonent bi moo ko yor ginnaaw juróom-ñetti at ya nga xam ni Abdul Muttalib bàyyi na kook moom ba ñu yónni yonent bi waa am fukki at ci la faatu moo yor yonent bi lépp moo ko yor Abi Taalib hmm. te di ko aar hmm. ci lépp loo xam ne song mu jëm ci moom moom moo ko doon aar dem na sax ba loolu ko loolu mu ko mu tontu woon yonent bi ni ko mënuma bàyyi sama diiney maam di ñëw waaye nag yow moom danaa la aar ba li nga bëgg nga rekk ca loolu la ko Abi Taalib ba loolu tax nag bi mu demee sax bay faatu tiiwut Muhammad ñëwaat na ba ci jëmmam ni ko yaa yaa am bi xul laa ilaha illa allah mu ni ko boo laa ilaha ci laay lay seere bu ëllëgee nga dem àjjana bu ñu ji ñu gàntuloo ko kon diggante boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ak ak ak ak ak abi taalib foofu la jaar ak Ali ibnu abi taalib macha allah xam naa bu ñu ñëwee tey ci xasida leen ñëw incha allah waaw ndax bu ñuy ñëwaat xam naa ni beneen bunt bi ñu jëm mooy relation cheikhul xadim hmm, Serigne Touba ak ki nga xamante ni nii fa tabaarakallahu moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ndax juróom benn weer la jox yàlla ci mbindam juróom benn weer mu jox ko yonent bi ba tax na diggante cheikhul xadim ak sayduna muhammad am na benn relation boo xamante ni nii lu nekkoon ci diggante bi la di ci dox loolu moo indi tey lii lépp moo waral lii lépp moo indi mbégte mi moo indi li nga xamante ni nii mooy mooy mooy sant gi moo indi li nga xamante ni mi ngi daw ci tarixa murit murit mbégte la murit mbirit murit xol bu sedd la murit euh, berne la murit jàmm la murit salaam la muy ngeneen mu di lépp loo xam ne rek mbaax la mu ngi ci murit tey euh, sëñ Mor am na loo xamante ni nii indil nga ñu ko mu jëm ci Seydunaa Muhammad ndax xel tey ñi ngi ci bisam mu di bisu gàmmu tabaarakallaahu macha allah rawatina weeram tedd wi nga xam ni doy na waar te relation Cheikhul Khadim ak ak ak ak Seydunaa Muhammad mënta weesu dañuy génn ci Sëriñ Tuubaa rek mu di safar rek dal ci yonent bi lan nga ñu ci indi ci mbind mi loo ñu mën a baax mu indiwaat xel yi ak xol yi auzu billahi min asheytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم فاخ الجميع الأنبياء والرسل سيدنا أحمد حب المرسلين خدما محمد على الكرام مشريبي للكل باحترام درجة العبد رسول أحمد سيارتنا خيار خرا حمدا waaw góor góor jaada nabi yow ma lastu bi jaab waaw góor bil xurri fan kul wa jaaba bi sawaab ndeysaan ajisa kul la walidin wa walida mm-hmm. ahmadu naa li siiw laa xaalida آيات أحمد أحد آيات من مضى ومن يأتي وفاخت الزمن لسان كتاب كتب رسل المنسل حوى وجد بالخيرى والنسل محمد عليه أفضل سلام muqaddamun bi xayri fi'lin wa karam bidayatul maaxayn ayatul xiyaar fadlu ala rasul ixtiyaar sayyidu kulli sayyidin yuxtaaru bi anna ahmada huwa almuxtaaru yanqaadu lilmuxtaari maa siwaahu falaloo fadlan wa qadaw rasulana na ñëpp def nii lu magal seydina muhammad sallallahu abdallahi ma ca gëléem ga rasuluna faaxa jamia rusuli hmm. walanbiya wa habibul mursili ndeysaan rasuluna faaxa jamia rusuli hmm. walanbiya wa habibul mursili hmm. يقول كل ما nafsi ahmadu ndeysaan waay Malick déggal li ndeysaan xam xayra man rahima sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay samaam waaw waaw Abdul Muttalib Abdul Manaaf ay baayam Abdul Manaaf Xusay ay baayam waaw góor waaw góor waaw góor waaw góor sallallahu alayhi wa sallam ku la mas a jaawal ñaay Mustafa wooy Malick nangu naa de ku la mas a jaawal ñaaw sallallahu alayhi wa sallam fii de fi ñaaw fii de fii rafet mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku lay jaay taar na sa xel dem ci Moustapha yi dëgg la de dëgg la de mi taar ba yàlla yónnee ko saar yaasin dëgg la de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waju way tawayaa kii maay mm. ab dërëm ngay wayaan mbaate buurooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama gaare gi may way Muhammadu Rasulullaay ndeysaan mu ko fa yaasin lay bàyyi xaali nangu Mustafa te yeneen nee na ku ma taggaway war na la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi lay way baba te way ma way mu saf la hmm. te saf gaa yi yenneen be sallallahu alayhi wa sallam man Malick bu may présenté émission boo gisee ree gi bari ci man rek damaa nangu <laughs> te damaa daanu te damaa am yëg xam nga woy dama ko xam ndax ba ma juddoo ba léegi bi ma ñëwee benn métier laa am bu ma yàgg toog ca ay at boobu ba léegi nekk ci muy tàgg yonent bi boo ma sa dem damaa ñam génn neexuma ma dem génn waaye tàgg yonent bi rek laa yàggee boobu ba léegi waaye métier bu ma waay jox hmm. sama baay dugal na ma ci tailleur ma def fa ñaari weer ak i fan mu dugal ma tëlier eh. fii ci ndawañang ma def fi ñaari ataki fan ma dem ca menuisier ga apprenti wu naa def naa métier yu bari waaye daal tagg yeneen bi bi ma ci duggee ba métier ma ci ah, bi ma ci duggee ba tey génn ma ci ndax xam ne daal métier maa ngi te ah, mooy métier bi riche bi riche métier mi nga xam ni ku ci dugg daj nga ci loo xam ni lam la may askan juddu mayu la ko muy tagg yéen kii xoolal Cheikhul Khadim ah, ni mu ko defal xoolal Seydi Hadji Malick gi mu ko defal Cheikh Saad bu muy sëtam xoolal ni mu ko defal nga dem ci maam li maamu li mu ko defal hmm. tagg yonent bi rek la ñu am moom moo leen may li ñu ñu am hmm. relation boobu nag laa la doon wax léegi imam hmm. ni la moo nekk ci diggante Cheikhul Khadim ak Sayyiduna Muhammad relation boobu boobu di daw ndax sëriñ Touba yàlla nañu ko yàlla fayal Baye Basak Baara maam mi den ak Cheikh Mbacke yàlla nañu ko yàlla fayal maam Cheikh Abdou Karim lan mooy relation boobu relation bi mooy xitma bi mm-hmm. xitma bi waaw mooy liggéey boo ne xaadimu mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam xaadim nag mooy booy liggéeykat bu dul wàcc nekk ca liggéey ba mooy xaadimu si moom la sëriñ bi nakkoon ci yeneen waaye lu mu waaw waaye lépp lu mu daal di ko ñaan da koy jaaree ci yonent bi. sallallahu alayhi bi muy bind xasida gi dem ci géej gi te mi ngi ko bindee Touba. mu ni. lil badri nuurun azimun mhm. yustanaaru bihi. Mhm. lakin isa lam yakun li shamsi ishaaru. mu ni weeru badar mooy weer fa am fukki fan ak ñeent mm. nee na am nag leer te boo jaaree ci leer gi da gis sa bopp boo jaaree ci leer li nga soxla di nga ko gis mm-hmm. waaye nag sëñ Tuubaa nee na bu mu la jàpp nag ba nga koy tëkkalee jant boo xam ni daa toll ci ci ci diggu bopp diggu njolloor waaw dëgg la mu ni jàppal ni ñi fi jaar kat ku ci góorgóorlu ba tal ci leer weer woow mm-hmm. yonent bi mooy sab jant moo la gën a leer foofu la toll dëgg waaw nee na seen diggante loolu la mu wax ni mu wax ni lil xas bi tuulul la da ay aynin lahu nasarat lakin isaa awlahu lan tan bu tas jaaru mu ni bant day bu ko bët gisee man naa seen bantub soleen wala bant bu ne ah bant bee ko gudd waaye nee na nag bu koy ron wëree nag ay ron bu wëree bant ba dootoo gis bant kon ñi fi ñi ngay joxal yépp ni gudd nañu ci bant lañ yem ron gi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo leen si topp mu ne yakunu lil birri ma an taaba masrabuhu lakinahu min xalijil bahri attaaru nee na teen day am na ndox mu laab ab teen bari na ndox am na ndox mu laab waaye nag bépp teen kenn du ko të tëkkaleeg Lac de Guiers Lac kenn du leen tëkkale ay ndox kon jàppal ni ku fi jaaran ab teen la man naa neex mhm. waaye kii teen bi nag lat de guerre gele nee na mooy sayyiduna Muhammad ndax moo ëpp sallallahu alayhi wa sallam ci Cheikhul Khadim mu ne atallu maaun wala kal wabdi musajjiman wala tujaari na ba bil maahi amtaari mm. Mm. ndeysaan mu ne wis wisal day am ndox la ca mm-hmm. ni mënu ko ab layit am ndox la mm-hmm. waaye ñoom ñaar nag mënuñoo ñëwee waame woo xam ni bu tawee gars yi dañuy dem ji gerte ñi fi daan jaar yëpp dañ doon wees weesal taxut gaa dem ji amul kenn ku fi taw ba gaa yi dem ji sëñ Tuubaa nee na ñi fi jaar wees weesal la ñu wala ay lay te lay ak wees weesal kenn du ci jikkarte mu ni kañ lañ doon xaar mu ni waame ci Seydina Muhammad mooy waame sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon moom noonu la toppee yonent bi wax na ni fala taqisim ne abdillahi bilfudala ina alkawakiba yuxfi ashinimaaru mu ni waay waay booy lim ñu baax ñi ba agsi ci yonent bi tegal fee ni kii gën bu ko boole ci lim bi mhm. ndax ki gën nuroowut ak ñi mu gën doonte baax nañu dëgg la sëy sëñ Tuubaa ni kon doo xool mukk weer wu am fukki fan ak ñeent nga naa moog bi diw yeyam mhm. kon kay bëgg a juum rek dëgg la kon kii weer wi am fukki fan ak ñeent mooy rasulullah ñi ci des yépp doon nañu leer waaye biddiw ci lañu yëpp <laughs> moo tax ñi doon sàkkuy ngëneel yépp ci àdduna mm-hmm. ba yonent bi feeñagul ak bi mu feeñee ñëpp ci moom la ñu dëgmal mm-hmm. raamal wara nay la fadli lahu wal fadlu inda rasulillahi xaraaru mm-hmm. nee na mboo raamal wara sakku na mboolem kilifa ya nay la fadlin ami ngëneel musriina bu mu jaaral leen ñu gaawantu lahu jëm ci ngëneel waaye wal fadlu ngëneel yooye nag mhm. inda rasulillahi xaraar fa yonente ba la sax ku ko bëgg ci moom ngay jaar soga ku bëgg gënal morom ma ci reen yàlla Muhammad nga koy gëne mhm. sallallahu alayhi wa sallam mu ni ñaari loxo nag la yoroon mhm. loxo boo xam ne boo gëmee mu neexal la lu ci yor jox loxo boo xam ne nag boo jàkkaarloo moom ngir dóorante mu dóor la nga daanu dëgg ñaari loxo كلتا يديه لها سعي تلاسمه بسل وبحث لمن لا نوم جاء ñaari loxo la ndijoor bi da daan sottil ay xéewal ñi gëm yàlla càmmoñ bi da ci daan du may ay yëfër moom rasulullahi sallallahu mu ne nag boo takkee xam jinne amul xam bi nit amu ko malayka amul xam-xam bi nee na kàggu yi xam-xam yi nga xam ni ci ñëpp di tande ci dënnub rasulullahi na ne lahu min al ilmi ma lam yaxwihi basarun aw jinnun aw malakun wa sadru misxaaru kon dënnub Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem ndam mi xam-xam yi ñuy jariñoo ci àdduna ci dënn ba la ne ndax dënn bi ci la xam-xam ba tëju kon xam-xam bi junne amu ko mhm. xam-xam bi nit amu ko mhm. xam-xam bi moom malaayika amu ko mhm. ndax moo ëpp ñëpp xam-xam kon kooku mooy Seydunaa Muhammad ci biir xam-xam moom rasulillah waaye nag lépp luy ragalit da koo ragaloon dara mosu koo ñemee lu weddi yàlla yonent bi nag lu mu masa am lu mu mas am boo boo gëmee yàlla boo ñëwee mu jox la ko hmm? mu àndoon nag ñeent nag xam naa émission bi boo muy waaw ñeent hmm. kenn ku nekk dama ci laaj ñaari bay rek ki mooy Abu Bakri Sadiq Sadiq Mbaye moo ko gunge woon bi mu gàddaayee hmm. ku njëkk dar waaw moo ko njëkk gëm moo ko njëkk di dëggal ci lu mu wax moo ko gunge ba ñu amee ci xunti ba ñetti fan ba gàddaay jëmm sëñ Tuubaa ne fasa fasaara yud habisa nis nayni iina huma aqfaajuma nis ju wal waru xaahu aqaaru fasaara yud habisa nis nayni iina huma fasaara mujj nañu yudd xaa di ko wooye bisa nis ci ñaari bi yonent axfaahuma nasju wal warxaaw wal xaaru axfaahuma nëbb na leen a nasju jargoñ wa wal warxaahu ak konti ma wa xaarun ak konti macha allah bëgg nga eh, ci kanam mhm. ñu ñëw ci mawli bi moo tax ma mhm. mu ni moom moo daa jël ay alal mhm. di ko dépassé ci yonent bi lu mu yor ba ko daan génne joxe yonent bi ne ko loo bàyyi sa kër ko yàlla laa leen sëñ Tuubaa ne wafa nabiya bi amwaalin wa an waram yaxruhu sàkkun wa in kaana daman dépassé ci ale alal yi di ko jox yonent bi mësta sikki sàkka wala muy weddi lu wax sallallahu na doomam di ko ay sa may ko ko mhm. Abubakar yàlla sàmm na ko ba mos ta su jootal ak xërëm te mu nekkoon màkka ñëpp di naan sàngara ko su jootal xërëm waaye bokk na ci ñi yàlla aar moom sa moom aboubacar sadiq ba mësta naan sàngar mm-hmm. lam yasribil xamra walam yasjud ila sanami wal walidaani maal awlaadi ab aar ki ci des mooy omar bun xataab mm-hmm. moom moom mottali lislaam wa huwa almutiimu sawil islaami mm-hmm. yowma hada miiman bihi kaana lil islaami ishaaru moom mm-hmm. ci moom la lislaam siiwee boo demee ci alaaji maali ca téeram rawaxane wa innahum xaraju min baxdi kawnihim sujilat wa kaana sihaabu diine sa daramit nee na bi ñu bi ñu daata génn ñoom ci ruq bañ neem ñoom jullit ya mm-hmm. nee na omar dugg ci lislaam ñu nekk sujilat am nga sujilat mooy laaj mooy mm-hmm. quarante nee na wa kaana sihaabu diine sa daramit lamp diine keroog bi Omar duggee ci l'islam ji ci la tàkk wa bi nabi aslama alfaaruqu suma bihi kaana alxuruji li nahwi almasjidi al arabi ci la ilaha illa allah nee na ci ñaanug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la Omar duggee ci l'islam yonent bi moo ko ñaan yonent bi moo ne allahuma aisal islam bi Omar ibnu Xatab ñaan boobu ci la Omar duggee ci l'islam alhaaji Maalik wax ni wa bin nabi aslama al faaruqu suma bihi kaana al xuruuji li naxwi al masjid al arab nee na ci Omar la gaañi ñi nee génn ni mën li ca bitti mhm. nee na ju jublu ca Kaaba ga mhm. directement bi Omar duggee nee na moom lay def mhm. moom la sëñ bi wax ni sëñ tu wax ni wa huwa al mutiimu sawil islaami yowma hada mii man bihi kaana lil islaamu isaar benn wax bi la moom mottu li ñeen fukk yi bi ci duggee ci leen lislaam siiwee mu ngi taqale dëgg ak caaxaan ci omar wallahu farraxa bin faruqi sayidana alxaqu min batilin abdat ufu jaaru caaxaan yi yëfar yi daa feeñal nee na omar ñëw taqale caaxaan ñooyaat ak dëgg gi ndax bi mu duggee ci lislaam rek la dëgg ak caaxaan daa di taqali ko mu ni ba mu cay dugg nag jibril moo wal yawma aslama jibrilul aminu ata bi isni man huwa fawqa kullu qaal mualliman ana al islam al fata umarin busra li ahli sama wal kulli yaxtaar moo ko bégal ni omar dina dugg ci lislaam ji te duggam dina bégal waa asamaan ñi nekk ci asamaan yépp dinañ bég ci dugg gi omar dugg ci lislaam mhm. omar dugg ca lislaam nekk ca ka mooy usmaan ibnu afaan ma wax ci ñaari bayit mhm. moom ali ibnu ali abi taalib moo toog yonent bi toog ñëpp toog aliyu laaj yonent bi ni ko nun ñi kan mooy jëkk a taxaw ci kanam yàlla yonent bi ni ko man mhm. mu isaab ko yow mal xiyam waaye nee na ko man kat yàlla damay daal di jéggal bàyyi ma dugg àjjana mu ne ko ku cay topp mu ne ko aboubacar siddiq waaye aboubacar kat bu ma amee dix minutes vingt minutes lay am waaye da yàlla da koy mu jéggal bàyyi mu dugg àjjana mu ne ko ku cay topp ko omar mu ne ko omar kat bu Aboubacar amee vingt minutes dina am quarante mille waaye suñ borom dana ko jéggal moom it bàyyi ko mu dugg àjjana mun ko ku day topp mun ko yow Aliou Aliou du ko ana Ousmane munu ko Ousmane nag yàlla du ko laaj munu ko lu tax munu ko daa am kersa ma ñaanal ko yàlla ngir bu ëllëgee yàlla bañ ko taxawal ci kanam. li ko waxee al Ousmaanu soo a yaaxin wa saaltu rabbi an laa yuqifahu lil isaab fa safaxani fiihi loolu la sëñ Tuubaa wax ni baata nabiyun ca ñaan nga ila fajrin yaruumu lahu ridan min allahi sa taflilu kubaar kon kooku mooy juróomeelu xalifa bi ñeenteelu xalifa bi mooy Aliyu xale bañ doon def ca Tabuk la ko yonent bi ni toogal gardeel ma waa ahlul bayti ba ma ñëw mu ne ko yaa rasulaay man mii jàmbaar nga may booleeg jigéen ñi xale yi ci mm-hmm. Madina mm-hmm. jàmbaar yépp dem ànd ak yow di xeexi mm-hmm. yonent bi ne ko dama la bëgg a neexal mu ko loo may neexale mu ne ko dama la bëgg nga am wàcc waaye yu Haaruna amal ci Muusa nga xam ni Haaruna boo ko tuddee rek sam xel dem ci Muusa ak Haaruna sëñ Tuubaa ni loolee nag man si la booba rawu axarra rasulullahi mansilatan minhu ka Haaruna min Muusa la dun saaru xam naa dana ñëwaat ci li ci des ci émission bi ci nag dugg ci mawlidu woon mu asam incha allah incha allah euh, euh, euh, sëñ Mor dégg nga tey imaam li nga xamante ni indee na ko man imaam mujj gi sax damaa daaneel ba damaa mujj toog rek ko xam naa ñun ñëpp daanu nañu mm-hmm. waaye yonent bi moo ni tollu rawatina ki ñuy waxtaane mu bind ci moom ci bis bi bile wax naa la ko mu bisu gàmm ñu nekk ci yaakaar naa ni ñu ngi leen di santaat bu baax a baax yéen téléspectateurs yi ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan fii ci eh, Rewmi TV TNT canal 108 ñu leen di santaat bu baax di leen gërëm bisu Seydouna Mouhamed la moo ni toll ñu àndaat ak tey ba tey di sëñ Mor Mbay xasida ñu ànd ki nga xamante ni tabaarakallaahu moom moo di imaam macha allahu di kilifa di koo xamante ni nii eh, réew mi xam nañ ko ràññee nañ ko bari na fee ñu mu dëkkee ca goxam lépp lu bari lu ñuy def faaw moom mu teewee bu dee ci wàllu waxtaan wi waaye ci wàllu mbindum cheikhul xadim macha allah mu di imaam xaali sëy ñu ràññee ko bu baax a baax moom lañu fi dalal tey ak sëñ moor lu ñu tàyyi benn woon waaye ñu koy ziar bu baax a baax a baax moom mi nga xam ni sama nit la sama jigéen la mu demoon fële ca baytullah al xaraam ñu koy ndokkalewaat bu baax a baax a baax moom mi nga xamante ni moo di soxna ci lamin Ndaw di suma rakk doomu ajaratu yaay Binta macha allahu sëy taaliba Cheikh Cheikh Sadbu bi nday mati jigo lañ koy wax waaye léegi ajaratu nday mati jigo la ñu koy ziar di ziar lamin Ndaw bu baax a baax ndaw aram faxa borom dukumaan nee naa la alaaji Muraad ay maamam boroom ñetti cheikh ya ca ngaay mexe Lamine jàmbaar la ci ci mbirum Serigne Touba ci màggal gi lu mu am lu mu yor ci màggal gi la koy def waaye kuy jàng xatu xasidatu sëriñ Touba rek Lamine Ndaw am lante ne ak yow mi ngi lay teral ngir ngir gëm gi mu gëm Cheikhul Khadim mm-hmm. paas yi da koy joxe te teraanga yi nag yi da koy joxe waaye du yendal du fanaanal juróomi fan Touba yi muy def ci màggal gi lépp lu mu yor ba ci ay nelawam sax da koo jaay sëñ bi moom lamit Ndaw ndeysaan ñu koy ziar muy suma xarit di lépp ci man di ko bégg bu baax a baax waaye li ma bëggoon imaam mooy nga ni dafa am foo bëgg dugg dama bëggoon moor dugg foofu ngeen duyoo ko man damaa bëgg duyoo boo xam ni waaw ci mawlid bi ngeen duyoo ko <coughs> ndax xam naa ni waxtu yi comme ko soriwul te Malick moom du maye dara <laughs> Malick moom xam naa duma may dara léegi bu ko defee ñu dem ci loo xam ni di ngeen ma ko duyoo daal ci bisu gàmmu gile téléspectateurs yi kontaan Moran. waaw ngeen diyo kii yuuxu kii firi kii yuuxu kii firi. kii yuuxu kii ci benn ah, yonent bee ni toll nag Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa ma koy ziar bu baax a baax moom it ajaratu juma sawla di ko bégge bu baax a waax waaye nee naa leen kenn la ci man dafa am koo xamante ni imaam dama koo bëgg lool muy suma jigéen mu nekk fële ca foire macha allah ñu koy wax Adja Cheikha Seppi Sarr moom Seydina Mouhamed moom Cheikhna Cheikh Saad bu moom Cheikh Hadrami doomu Cheikh Saad bu Cheikh bi moom itam ah, di chéri Lamine Bey maa ngi koy ziar bu baax a baax ku baax la nit la boo xamante ni nii lu mu yor foog na ni man la koy jox imaam kooku nag boo toogee ci yu ni mel day baax ngay fësal teraanga yi nga xam ni mi ngi la koy defal macha allah di ko ziar bu baax a baax waaye di ziar Adja ca Màkka Cheikh ca Nimzaat kooku ajaratu Cheikh Jatu Saane madame Diop kenn du moom ma bëgg Aca moo Mawlid woon hmm? mawliduhu muassamu yeneen mawliduhu juddem nga muassamu lu ñu màggal la teg ci mu baat mubarakum muxtaramu yeneen mubarakun lu ñu barkel la moom guddi ga muxtaramun lu ñu warmal la moom guddi Seyduna Muhammad sallallahu الخاتم على زر التقدم سيدنا محمد تقسيمهم مجال كونك ينحتم ورنا على زر التقدم دي كيف كوجي جيتال ndax ku jiitu rasulullah ya tax señ duwane taqsimu bi sunnati taqsimuhu màggal leen ko nag waaye bi sunnati na ngeen ko teg ci sunna lu sunna bëggul bu leen ko def ci guddi yi yaquduna màggal gi ci guddi gi nag moo ne yaquduna màggal googu ñu ko màggal moo nuy wa mat li jannati ba yóbbu nu àjjana nu ñu doon màggal guddi gi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam istiyaadul minnati li muxlisim moasimi saydina muhammad bi istiyaadi minnatin te nag dina dolli sunuy xéewal fii hmm. màggal gi nga koy màggal fii lay dolli xéewal gi li moxlisin ñeel kuy kuy sellal mu asimi di màggal da ngay màggal ba pare di sellal guddi ga fa man yoasi mawlida nen fa man yoasi ku màggal mawlida juddug sayduna Muhammad kooku mooy kan sayduna Muhammad nabiyuna نبينا باب الهدى سيدنا محمد نبينا mooy suñu yonent waaye baabil huda mooy buntu njub gi boo bëggee jub foog nga jaar ci moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala yuhasabu xada faxtarim mawaadimi fala yuhasabu boo ko màggalee kenn du la isaab xada ëllëg faxtarim maw na nga ko war maal wa asimi te màggal guddi ga فمن يعصم مولد خير البرايا أحمدا فمن يعصم كم مجال مولد جدك سنينت بي خير البرايا كي جنت ميدف أحمدا تترى موي أحمد تترى يجيك يا موم سيدنا محمد فتزيد سيدا diwaani Serigne Touba ne bul defe defele kasa kasa fa kasa idin saa ida daa mel ni yow mi ko faggel màggalan fekke nga badran badar bi xayri waxami ci lu amut njuumte daa mel ni boo màggalee guddi gi ba ñuy xeex ànd ak Seyduna Muhammad ca Badar te wane woo ginnaaw ba xeex ba jeex yow fa kullu man anfaqa fi mawlidil musharrafi fa kullu man képp koo xam ne anfaqa daa déparé dépassé fii mawlidil musharrafi ci guddi gu tedd gi muy guddi Seydina Maalan maalan bi xayri sarafi walaw bi xadri dirhami maalan alal bi xayri sarafin ci lu dul yàq alal ju lew nag la wax walaw bi xadri dirhamin doonte benn dërëm nga dépassé ci guddi Seydina Muhammad looy am yow فإنه كمن دار يوم نين وسبعين فإنه واجدي كمن أدر من نين تيوان يوم wa sabar te mu muñal tiis ya wa badri ak bisub badar wa nasar te mu doon dimbali xayral waraa ci mbindeef yi al mufahim ki yàlla dégg moom si man seydina muhammad kon wa yawmul badri teg nga ci tuyaaba am bisu badar wa nasar te nga doon dimbali xayral waraa ki gën ji mbineef al mu afahimi ki yàlla déggloo mooy seydina muhammad fa man yuasi mawlida fa man yuassimu ko màggal mawlida juddug yonent bi nabii naa suñ yonent bi nga xam ne baabil huda mooy buntu njub gi looy am bu ëllëgee falaa yuassamu falaa yuassabu xadaa inda isaabil mufimi falaa yuassabu kenn du la réglé xadaa ëllëg indal isaabil mufimi ca isaab ba nga xam ne buñ la ne lii laa yaa ko def doo tontu doo mel fa kullu man xadaa dara ñëw na muhammad sëñ Tuubaa nag waxul ngeen toog ca kër ya fa kullu man képp koo xam ne xat adara teew na hmm. mawlidu afdalal wara ci guddi jën jën gi mbindeef mu asiman mu bashira mu asiman mu bashira bi sukkari dalaamey góor ga ca madinaay fa kullu man xat adara ku teew sallallahu alayhi wa sallam mawlidu afdalil wara juddu gën ji mbindeef mu asiman ngay màggal mu bashira ngay bégal ñaata ngay bégale nga bi sukkurin ci suukar aw laxami wala ndawal kon boo indee boisson baax na sukkurun la boo andee attaaya baax na bi sukkurin la lépp luy saf suukar boo ko indee ca guddi ga sëñ Tuubaa nee bokk nga ci màggal ga fa inoo xat safira fa innahu waa ji andi loolu lay xat safira am na bi maa yu dimul bu saro loo xam ne mbigam day sax ndax wala yu laaxi darara wala yu laaxi darara yow ma ci maayilu ma mi wala yu laaxi kooku teew guddi ga bégal ko noonu wala yu laaxi du darek dararan benn lor yow ma timaamil umami yow mal xiyam bu yàlla dajalee xeet ya du fa gis samanta sallallahu alayhi wa sallam. fa man taama koo xam ni ñam xat ay yaxaana waajal. ñam bi ngay def ci guddi yonent bi da nga koy waajal. Hmm. fa man taama ay yaxaa. ku waajal ñam yu ñuy ñëw rek. déedéet denc kii ah, ñam ñam bi na baax ay yaxaa. da koy préparé. da li mën la woo xat xaraxaa jàng ko jox ko ñay jàng. mu bajjilan fa xaabaxaa. Hmm. nee na di ko màggal fa xabaxaa gam na xayaati. mu bajjilan fa xabaa xayaa. salaati ahlil mami ñam mi na nga andi ko mu bajjilan ngir màggal nee na fa xabaa am nga xayraati ahlil imami mboolem yiw yi ñi nga xam ne dañoo yitte woon yàlla am nga yiw wa man ala sayin xara sëriñ bambat nee na wa man ala sayin ara xara boo jëlee dara nga jàng ci guddi gi yonent bi tifli lu mu lay jariñ mawlida sayyid al wara xara jàng nga ca lool tifli ja mawlida xayrit xayral basari juddi gën ji mbindéef sëñ Tuubaa nee na tabarukan fa sa yara nu mubil fam xami seydina muhammad wa man ala say in ku jàng ci dara mawlidu saydel wara juddu gën ji mi def tabaarukan ngir bëgg loolu barkeel fa sa yaraa dana gis nu muuwu ak si xeem bi fatxami ci darajey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom moom eh, ñu ko doon eh, siyaare ci bis bi na waaye du juub <coughs> dëgg la te bu yoon jeexu sil waaxisul du jeex mu mel ni Malick waxoon naa ni la moom du maye dara waaw imaam kenn tamit dama ko fàtte woon muy suma yaay di ajaratu kani gay papa gay xaar nekk fële ca Medina moom ndeysaan bis bii ñu nekk mu di bisu gàmm mm-hmm. moom ci lay woote cérémonie bu mag boo xamante ni da koy amal foofu ci sama kër maam papa gay xaar foofu ci Tiwaawan bu mm-hmm. jàkkaarloog gendarmerie ba di ca woo xarit ak am di jàmm ya ay bernde yoo xamante ni da koy def ndax kan gi papa gay xaar soppi Seyduna Muhammad la ko bëgg yonent bi la ñu bari dañ koo réeree moom màkk la juddoo te bi mu mm-hmm. doonee liir dellu na màkk ñoom aj yi ñu def yëpp màkk mm-hmm. lañ ko defee moom baayam ku mu am aji nga màkk ci ndaw moom papa xaar moo tax kan ngay papa gi xaar bëgg gi mu bëgg Seyduna Muhammad du hasard ci moom ndax ki ki nga xam ne bi ngay ndaw nga aji mhm. nekk liir ñu ajal la mhm. kooku moom beneen mbir la mi ah. kan ngay nag mi ngi woo ñëpp ca bisu gàmmu cérémonie boobu nga xam te ni tàkkusaan boobu lay amal mbokk yi leb dafa neex waaye du jiwu euh, imaam tabaarakallaahu macha allah sa kàddu yu mujj yoo xamante ne nii ci wàllum plateau bi ñu nekk la kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax mm. di gërëm sëñ Cheikh di gërëm euh, euh, alaaji Mbaye hmm. nga xam ni borom kër gi di la siyaare bu baax di la ñaanal mm. xéewal ak jàmm amiin yaa suñu wóllëre nga bu baax a mm. baax ku baax nga imaam ñu xam la ci tagg Seydina Muhammad imaam li ma gën a yéem ci moom man Baye saa bu ma ko rombee rek waxu diine la ñuy waxtaan waaw waaw di ku baax a it ñu ràññee mm. ko ci jéewi tagg Seydina Muhammad te ni nga ko waxee rek liggéey bu nit di liggéey liggéey tagg Seydina Muhammad te gën a kawe ndax moom rek mooy waaja nag moom rek a jëri tagg ndax ku woy ku dut yonent bi da ngaa juum rek waaye woy fële fële jëkkoon kon ñu lay siyaar bu baax a baax di ñaanal jàmm di ñaanal waa mi FM ak waa ñoom mm-hmm. ñëpp ñaanal xéwal ak ñoom Malick ñoom ñëpp ñëpp rek ak mm-hmm. technicien yeeg ñëpp jërëjëf kooku moo doonoon imam xaali macha allah ñu dalaloon ko ci bisub gàmm gi ci bisu sayduna Muhammad bi mu indil ñu li nga xamante nii mooy yéeneem ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay wax nga dëgg li ma ko wax loo man mi maalik li ma ko wax loo xaw ma ko sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon euh, ki nga xamante nii mooy Euh, tabaarakallaahu sëñ Mor xasida ñu bàyyi ko mu joxe kàddu yu mujj yi nga xam ni mooy kàddu yu mujj ci plateau bi nga xamante ni moom la ñu naa Seydunaa Muhammad di bisu gàmmu sëñ Mor. waaw xanaa di jégaluwaat bu baax di dolliwaat siyaar di jégalu ci njàng mi ndax dégg kàddu gi xam ni fan yii yëpp njàng mi daa tegaloo moo tax feeñ na ci njàng mi. Mm-hmm. la neex na lool sax Malick leer na Malick neex na lool. bëgge woon noonu ko nu. gën a lool macha allah di siyaare ñëpp rek di ñaan suñu borom def jàmm ci kër gi mm-hmm. te dale ko ci président bi sëñ Mbagnick mm-hmm. ak uh, ñi fi nekk ñëpp rek mm-hmm. réew mi FM ak réew mi TV ñëpp rek ñu ngi leen di siyaare bu wér ah, di ñaan suñ borom defal leen jàmm di la siyaare bu baax bàyyi kebe di ñaan suñu borom guddal fan yu yokk wér gi amiin ñu bokk waaw yonente bi moom ci la nekk ci la ni xëy ci la ni gont suñu lépp moom la waaw ñoom ñu ngi sant ñëpp rek jërëjëf euh, sëñ Mor jërëjëf euh, yéen mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni nii rek lañ fas yéene ànd ak yéen ci gàmm gi tey ku dem rek sa moroom ñëw ñu dalal kër yëpp tabaarakallaahu macha allah ndax lu waaye jàpp na ba gën te li ma wax je suis te maa ngi koy waxaat Malick encore duma ko tàyyi jaar naa ci métier yëpp métier yi ma jaar yëpp bu ma dem damaa dugg génnaat waaye métier tagg bi yonent bi rek laa génn ba ma ca nekkee ba tey moom laa dugg ba ma ca nekkee ba tey génn ci yëpp génn naa ci métier bu ma dugg rek génn naa ca dem waaye bi ma duggee ci métier tagg yonent bi ba tey dama cee des te duma ca jóg te it ba illaa yow mi diin duma ca jóg teg yonent bi rek a wóor Malick cant ak ngërëm ñeel na ñëpp téléspectateurs yëpp nga xamante ñu ngi ñuy seetaan waaye di gërëm DG Moustapha Diop ci liggéey bi nim ñu ko yombale macha allah waaye coordinateur yi nga xamante ñi ngi ci kër gi di daw di ñëw ndax am na ñoo xamante ni bëgguñu ma tudd seen tur waaye bu ma leen nee DG sax ñu daw tabarakallah waaye directeur général président Mbagnick jóob yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi ko njabootam ak xelam ak dooleem ak mën-mënam ndax lu mu am def na ko ci diine waaye ku taxawu bis rek mu taxawu la ci lu waaye mal mu ànd ceeg yow kon kooku dafa jara ñaanal te diine ji xàmmeewu ci ràññeewu ci lu dul na doon diine rek moom la ca xam mu nekk ci ak ñëpp Tiwaawan bu xewlee ma nga fa Njaasaan bu xewlee mu dem murit gi mu doon bu sëñ Touba lu ñu xewle moo ciy jiitu waaye lislaam lu mu taxaw rek président Mbagnick ak ajaratu Jatu Saane mi ngi ci kon yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla bàyyi fi ak bàyyi fi njaboot gi Malick maa ngi koy sant di ko gërëm Cissé macha allah moom moo ñoom ñi ci régie bi ndax ñun bu ñuy feeñ ñoom la ñi ci ginnaaw naa ko bërki démb nee naa Cissé yéen boo leen ñu ñaawaloon ñun dañuy ñaaw te kenn du ci mën dara ci écran bi kenn dootu ñu nangu xool te dañ ñuy dégager boobaa waaye gàccaangaalaama yéen am a ndam am ngeen jaaraama maa ko ko Wally Ballago Seck mu dégmal ci loo xamante ne naa la ndamub réew mi la muy disque door ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may album bu muy génn dafa waxoon ni benn faramaaren bu nekk na jënd benn album waaye man damaa bañ benn sénégalais bu ne na jënd benn album ndax ndam li ndamub Sénégal la Malick loo xamante nii réew mee ko moom tabaarakallaahu kenn du ni ivoirien bi wala mauritanien bi dañ naan sénégalais bi kon moom bu fekkee di ndam la boo xamante ni sénégalais yi la koy wutal kon ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla daal na ko ci yàlla defal ndam defal ko Sénégal yëpp wa ila mulaana dañu dem ba beneen yoon incha allah ci beneen plateau ak ñeneen ñu fi war a dalal ci spécial gàmmu Malick jërëjëf habibi qulubuna tahwaha hiya durratun baydaau xaalisatan tura fa alayka an tas'a fa taraha فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار الحبيب قلوب والقلب قد سكن اضطراب لهيبه لما رأى ما في البقاع سواها دار حبيبي قلوبنا تحواها دار حبيبي قلوبنا تحواها كل الروائح قد ذكت من طيبها